ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi Euh, ponk ci gën a fës euh, mbootaay gi ëmb daara yu kawe yi fare ci euh, privé bi ñoom nag nee ñu mboolem njàngale bi ñu doon jagleel étudiants yi nguurug Sénégal kon daal di orienté ca yooyee daara dañu koy dakkal boole kook dootuñu jël benn bachelier loole nag ñi ngi ko xamle nee ñu nag lu jik njaak nguurug Sénégal mooy njaak ndax moo leen yoral borob fukki milliards ak juróom benn dinañ addu ci leneen muy nag borom lijaasa yi nga xamante ne ni ñoom ñi ngi génne rek sàkku rek ci nguur gi euh, mu dimbali leen ci wàllu xëy ndax yàgg naa doon euh, seen jafe-jafe tey lañu ko wax ci seen janook taskatu xibaar yi mu yemook bëccëg bi ñu jagleel jàngalekat yi loolu tax na nag bàyyi syndicaliste sax jot a addu euh, ñoom wax rek jafe-jafe yi nga xamante ni ñu koy jànkonteel ci wàllu njàng meek seen wàllub nekkin compagnie aérienne Air Sénégal am na ay roplaan yu yees lépp nag ngir dem beeg dikk bi ci jaww ji mën a gën a yomb nag ci waaxu Afrique yi daanu amal euh, Paris euh, Dakar euh, wàllu tàggat yaram ak comité local ci wàllu organisation bi nga xamante ni jëm na ci nag daal di kon sargal mboolem ñoo xamante ni jàpp nañ ne xarañ nañu ci wàllu ko football samp na nañu boobeeb kuréel ki ne ci bopp bi Matar Ba la di jëwriñ di njënk wàllu tàggat yaram Ballon d'Or bu Afrique ak footballeur yu gën a xarañ daañu leen sargal ci weeru janvier ci jam ñaajo lay doon mbokki ponk yaa ngi nii ci yaatal gi léegi léegi. Música daleen na jàmm ci xibaaru marax ñu tàmbali ko rek ci tënk maître Madické Niang nag boo moyul euh, tekki na ndombal tànkam ci mboolem mandat yoo xamante ne nii amoon na ko ndax parti démocratique bu Sénégal yenn nag euh, ci yéenekaay ci xarala yi ñu ngi koy fësal euh, depuis sànq nag muy ma Madické Niang kon mu mel ni sax ci groupe parlementaire bu liberté ak démocratie loolu it daal na cay jógee moom moomee di ma Madické Niang ci fàttali démb gis nañu. secrétaire général national bu parti démocratique bu Sénégal Abdoulaye Wade ci ab bataaxal boo xamante ne euh, fësal na ko muy sàkku nag euh, ci kii di maître Madické Niang du daal di koy jëlee euh, ci bopp groupe parlementaire boobee mu mel ni kon libéraux yi daal ñu ci bari lu ñu doon sàkku tey ji nangul nañ leen ko xibaar boobee nag des nañ ko biral bu ñu sukkandikoo ci parti démocratique bu Sénégal ndax ki nga xamante ni moom mooy Mayoro Faye mi yore wàllu communication bi nee a enseignant ci jëmi boppam amul benn bataaxal mbaa boog lenn loo xamante ni wax na leen ko mu soxal kon euh, tekki ndombal tànk yooyu dinañ ci euh, dellusiwaat ñu des ba tey ak maître Madické Niang laaj bu samp nag mooy tey jii bu fekkente ne rek kon dañu ko jëlee euh, ca poste président bu groupe parlementaire liberté ak démocratie yan njeexital la mën a am ndax du am yeneen député libéraux yu ko topp loolee mooy laaj bu samp bu ñu sukkandikoo ci docteur bi nga xamante nag xarañ politique bu Maurice Soudieck Dione euh, moom nag ci gis-gisam loole euh, mën naa ne naam ndax parti démocratique bu senegal am na ay charte yoo xamante ne daf koo aar waaye nag na jàpp maître Madické Niang tamit bu ñu ko ñàkkee euh, ci maanaam bopp kon parti boobee dana ci parti bi dana nekk loo xamante ne lu metti lay doon Alassane Ba secrétaire national bu PDS dina wax parti bi ñu bàyyee maître Madické Niang poste député comme ni ko defee woon ak Iba Der ndax kilifa waaye ñu def lépp rek ngir nangu njiitam ci groupe parlementaire liberté démocratie. mu di ab extrait bu lettre maître Abdoulaye Wade bu fekkente ni nag yegg nañ ci situation bi ni mel ay député yi nga xamante ni dañu bokk ci groupe parlementaire boobule ndax danañ topp kii di maitre ma Madické Niang mën na nekk bu nu sukkandikoo ci docteur en science politique bi. wante nag. wante bu ñu fàtte ne ndeyu sartu réew mi dafa am ab lu mu ab euh, ab disposition bu mu teg ne bépp député boo xam ne da nga jóge ci parti bi nga xam ne moo taxoon nga dugg assemblée da ngay ñàkk sa ndombo tànk kon xëy na loolu dina tax boo Euh, ñi nga xam ne dañu bëgg a beddeeku ànd ak Madické Niang xëy na dinañu euh, gise neneen. parti démocratique sénégalais ci fàttali mos na dund ay situation yu jaxasoo ca assemblée nationale feuilleton Modou Diagne Fada ak kii di Aïda Mbodj ñu ngi koy fàttaliku ba léegi ab exclusion mënta jur ñàkkub mandat kii di maître Madické Niang want nag. lan la mën a jur ci parti démocratique sénégalais. Madické Niang ku sës rëkk la ci maître Abdoulaye Wade Euh, nit koo xam ne la amoon na kóolute bu mag seen diggante Madické defendre na Abdoulaye Wade ci ay situation yu bëri ci ay procès yu bëri wante loolu war nañ ko mën a euh, wutale ak wàllu politique maanaam li nga xamante ne euh, nit ki war na mën a dajale ay baat yu bare ba nga xam ne askan wi dina ko mën a wóolu. moom mi leen di njiitaru groupe parlementaire liberté ak démocratie nee na dafay assume ab candidature alternative mu di mbir bi wane gëm ji mu gëm li muy woote ci jamono ji wante jiiteem bopp groupe boobule daan ci xam lu leer ci fan yi ñu dëkkmal ndax rentrée parlementaire ñu ngi koy waajal sax fukki fan ak ñaar ci weru octobre gi ñu nekk. ñu koy jaajëfal Alassane Ba taay nanu sonn nanu muy borom lijaasa yi génne eh, ci daara ji ñu duppi Fastef eh, ñoom nag ñu ngi doon janook taskatu xabaar yi li leen sonal bokk na ci ñàkkum xëy ba tax na nag ñu ngay gën di soññ kon eh, kilifa yi kàddu yi tey lañu ko yëkkati ci màkkaanu M23 leeral yi ak Mamadou saa gannaaw bi ñu amee seeni lijaasa ñii di jàngalekat yi génne ci daara jii di FASTEF li ñu sàkku rek mooy liggéey ngir mën a wàññi ñàkkum xëy mi ci ndaw ñi. suñu mbokku diplômé yi génnee FASTEF te nga xamante ne ñoom dañ leen tàggat ngir ñu mën a jàngale ñun dañoo génn pour wax ak nguur ne leen ñooñu noonu école soxla na leen te école wax na ne soxla na leen ñun dañuy laaj nguur. lu muy xaar ngir ñooñu noonu mu dugal leen ci école mu recruter leen ñooñu liggéeyal école. jamonoy école bu ubbi bi nag ñoom jàpp nañ ne bu ñu leen jëlee dina doon loo xam ne dina wàññi ñàkkum jàngalekat yu doy yi ci Sénégal. am na ay candidats yu nekk du génn ku ci nekk mu ngi wax lu mu namm ci politique d'emploi ñu nag regroupement des diplômés sans emploi ci li ñu commencé sonn mooy ku ñëw rek joxe chiffre yam ci moo tax ñu jël occasion wu conférence de presse bi pour interpeller journalistes yi ne leen question de l'emploi dans dans dans tout sous toutes ses formes ngeen jël ko ngeen acculé ci képp ku déclaré wu comme candidat à l' présidentielle bu ko jaree sax ngeen créé ay plateaux spéciaux yoo xamante ne da ngeen leen ci invité ngeen di discuter de de de question boobu kese. jamonoy campagne électorale nag ñii di diplômé yi li ñu bëgg rek moom mooy képp koo xam ne samp nga sa ndënd ci yooyu la jongante nga teg programme boo xam ne dina amal pàcc bu am solo. lii di xëyum ndaw ñi. dañoo seetlu ji ci ay profession libérale yu ci mel ni ay avocat ñu mel ni ay notaire mel ni huissier dañ koo jël loo xam ne daal dañoo jël liggéey bi ñàkk ko ba kenn mënu cee dugg def ci ay dëgg ko. ne ci biir seen i biir di ko di ko dawal seen biir. dugg ci fonction publique nag bokk na ci li ndaw ñi gën a bëgg li ñu bëgg rek moom mooy ñu jël ci lim bu am solo waaye it ñu amal ko ci concours boo xam ne amul benn par parloo Euh, tey nag yemook euh, bëccëg bi nga xamante ni moom la ñu euh, jagleel jàngalekat bi gannaaw nag kon ñooñee ñu dégg léegi ñu ñaxtu muy lijaasa yi nga xam ñi amee lijaasa te génne ca Pastef tax na ba TFM yegg na kon ba ca daara jooje ngir rek xam nañu leen di tàggate waaye tamit la ñuy faral di jooytu muy bu ñu ca génnee dañuy faral rek di am ay jafe-jafe ngir mën a jot ci wàllum xëy Alioune Guèye moo fa xëyoon. ñu ngi fii ci Pastef muy école bi ñuy formé way jàngalekat yi. bis bi ñu leen jagleel ña fa nekk di ñëw ci solos bis bi. waaw waaye bi bis moom euh, bi bis bu mag la pour pour enseignants yi parce que ñëpp xam nañu euh, état bu nekk pour nga pour sa koom-koom dem kanam ay éducation ak formation moom mooy war a nekk base bi. état du Sénégal war na si jël ay mesures à ce ñu ñu ñu ñu sensibiliser population bi ci journée bi enseignants yi tamit xam ne journée bi seen journée la ñuy def ay conférences def ay ay rencontres. ab njàng bu baax mu nekk loolu ñuy ŋàññi fii ci senegal waaye fii ci FASTEF formation bile baax na loolu. fii nii pour pour nga dugg fi euh, il faut da ngay passer da ngay def concours concours boobu. Euh, pour pour pour nga réussir moom dafa jafe pour concours bi. voilà concours bu métti la. Euh, formateur ñoo xamante ni euh, ñu bari si ñoom dañuy jaar si lycée avant ñu ñëw fii. nga am liggéey bis boo amee say sa mu nekk lu jafe fii ci Sénégal waaye fii ci FASTEF loolu nekkul problème. ñi nga xamante ni dañuy jaar si concours euh, ñooñu quota la ñoom ñëpp da bi concerné wu xamante ni dañuy jaar par concours. donc parce que quota la. def benn formation bi nga xamante ne tamit dañ koy teg ci yoon kon dama jàpp ne ah ñun ñun man awma lenn li nga xamante ne mën naa ko tiis sama avenir. bis bi ñu jagleel way jàngalekat yi ñu koy célébrer tey jii fii ci Sénégal ñoom way jàngalekat yi nekk ci ay jafe-jafe lool at bu jot ñu nekk ci ay grève ak ay ñaxtu yu metti Alioune Guèye ñaxtu yooyu ak euh, grève yi ni nga ko waxee ñenn ci syndicalistes yi nag euh, dëggal nañu ko lu am la euh, ñi ngi ci jafe-jafe fii ci Sénégal muy nag ñu yëngu ci wàlluk njàngale mi bëccëg bi nga xamante ni moom lañu leen jagleel jaare nañu ci rek tey jii leen wax lépp lu leen métti dañu ci ànd ma Mamadou bi paas si soxo Pape Sangone mbay at yi passé yëpp enseignants yi doon nañ fësal seen bopp ci seen i yëngu-yëngal ak i grève ñu nemmeeku tey ci bés bi ñu jagleel njàngalekat yi ci Sénégal mooy ni joxuñ leen seen gëdd. chaque année le 5 octobre mooy bis bi nga xam ne moom lañ jagleel jàngalekat yi mais fii au Sénégal mën naa ni daanaka euh, ñu célébrer fii journée boobu le 5 euh, loolu gëj na. pour delloo njàngalekat yi li ñu yeeyoo système payoor bi war nañ ko xoolaat. te jàngalekat yi nag dafa jot ñu xoolaat seeni nekkin xoolaat seen situation. parce que dafa amoon jamono yoo xam ne jàngalekat bi xooluñu woon lu mu am mais dañ doon gis ni boroom xam-xam la te ci société yooyu képp koo xam ne nit ñi gis nañ ni boroom xam-xam nga dañ lay respecté dañ lay naw dañ lay wekk loolu moo tax ñun ci suñuy ñaxtu ci suñuy xeex question système de rémunération def ci bokk parce que système de rémunération des agents de l'État buñ ko corrigé woon ku nekk ñu jox ko solo la niveau diplôme bu mu am ñëwaat itam ci njëriñu njàngalekat ci société bi. éducation mooy premier gisement de croissance malheureusement dañu am ay euh, autorités yoo xam ni ñoom dañuy yaakaar ni njàngale walla mbirum santé loo ci def rek dafa nekk loo xam ni lu yàqu alors que investissement yi nga xam da nga koy def ci secteur boobu mais. résultats yi doo ko apprécier en termes de bénéfice déedéet da nga war a apprécier en termes de qualité des ressources humaines yi nga xam ni moom nga defar. fii ci Sénégal njàng mbéeg njàngale bi mu ngi ci ay yëngu-yëngu depuis at yu bëri gouvernement bi nag amal na ay dig ngir régler seeni problème ba xam bii lay yoon dinañ sàmm seen kàddu ak année scolaire bi di soog a tàmbali. mangook lu jëm ci njàng meek euh, njàngale mi sax euh, dégg nañu kàddu yu tukkee ci njiitu réew mi euh, Macky Sall mu àddu nag ci daara kaw yi ak jafe-jafe yi ci nemmeeku ñàkkum professeur bokk na ci mu ne nag fileek atum 2022 daal daanu fexe ba lu toll ci juróom fukk jàpp juróom benn fukk kon ci jàngalekat ci daara yu kaw yi daanu leen jël SAES nag ni ngi koy rafetlu waaye bu ñu sañoon nag ñu daal di koy def laata ñu egg ci atum 2020 ndax université El Hadj Ibrahima Niass war nañu ubbi bunt ak Mactar euh, Mbow ñu teewlu euh, Malick Fall moom mooy secrétaire général bu SAES ñeenti at yi suñu gannaaw wala jàpp juróomi at ci le gouvernement bi autorisé woon ñu recruter exceptionnellement deux cent dix enseignants ñu séddale ko tas ko ci université euh, Sénégal yëpp donc bu fekkee ni tey jii euh, président de la république dafa wax ni dafa bëgg euh, à partir de deux mille vingt mu indi cinquante à soixante enseignants euh, par an ñu koy recruter mais ñun lu ñu def lu dul rek nii di ko di ko di ko di ko rafetlu mais di wax ni avant deux mille vingt également wax naa may recrutement parce que université bu élage Hadj Ibrahima Niass de de Kaolack war na ubbi te ay jàngalekat war nañ fa dem université Amadou Mahtar Mbow mais war na ubbi te ay jàngalekat war nañ fa dem. donc euh, te loolu waru warul nekk loo xam ne dañ koy dañ koy euh, maanaam dañ ko war a déconnecté ak 60 euh, postes yi muy wax donc 60 postes yi dañu jàpp ni pour université yëpp la donc pour yokk seen capacité donc d' encadrement seen taux d' ba tey ci wàllu njàng mi rawatina ak daara yu kawe muy nag daara yi nga xamante ne ñoo ñoo fare eh, ci eh, privé bi eh, mbootaay gi nga xamante ne nag moom moo leen njaboote ma nga yëglu mboolem jàngale bi ñu doon maanaam jëmale ci étudiants yi nga xamante ne nguurug Sénégal moo leen yóbbu ca yooye daara ñoom nee nañ dañu koy dakkal boole kook dootuñu jël benn bachelier li ko waral nguurug Sénégal nag daf leen yoral bor te bor ba nag ma ngay bëgg a yàgg fukki milliards ak juróom-benn dañu ci ànd ak Maymuna Njaay kuréel gi nga xam ni moo boot école privée yi ci Sénégal te nga xam ni ay jamono jëloon nañu ay ndongo yi nga xam ni nguur gi moo leen fi teg ñu yeggale seen tàggat nee nañu mënatuñu bor bi fi mu toll nii bari na bari goo xam ni kenn gestuwu leen li ñu fa yéenee def rekk mooy li ko dalee juróom benn fan ci weeru octobre duñu jëlati benn ndongo muy ñëw jàng si ndax kat nguur gi li mu xaatimoon fouraas gisuñu dara. dañu décidé woon jox ñu 3 milliards ci loi des finances rectificative bi bu ñuy votee depuis juin mais ba léegi dara dara duggul ci 3 milliards yooyu alors que en réalité li ñu ameel 16 milliards xam nga ko amel 16 milliards mu nangu jël 3 milliards kooku vraiment euh, comprendre na la muñal na la mais situation bi fi ñu toll nii école yi mënatuñu dem. mënatuñu former xale yi loolu moo tax ñu décider en tout cas ci fédération ñun bi ñu bokk arrêté cours yi jusqu'à ce que état fay ñu. fukki milliards ak juróom benn loolu la ñu xayma ni nguur gi loolu la leen ameel waa FEPES teg ci ne ba fi mu toll nii gestu wu ñu leen benn yoon te sax dafa doy bor du am raq moo tax duñu ñu jëlati benn nouveau bachelier. xalaatuñu sax. ah xam naa di ma laaj ndax di ngeen di jël étudiants yu bees xalaatuñu sax jël ay étudiants yu bees parce que lii doon nañu sëkk tant que problème bii réglé wuñu ko xalaatuñu def leneen léegi laa laa jotuñu sax 3 milliards nañ ñu fay 16 milliards yi ñu ameel bu ñu bëggee cours yi ngir ñu xàccandoo doorandoo kuréel yi fi mu toll nii doon nañu ab say teg fii benn pexe boo xam ni moom lañu ñu dubbee cadre unitaire d' action bu ko defee. ñu gën a mën a wax ak nguur gi ñu ngi xamal sax ni talaata bii di ñëw dinañ janoo ak taskatu xibaar yi. sant ko gërëm ko may Maimouna Ndiaye compagnie aérienne Air Sénégal am na ay roplaan yu yees lépp nag ngir dem ak dikk bi euh, ci Afrique saw jant nag euh, daal di rek gën a yomb euh, kon bokk na rek ci Abidjan Cotonou Bissau Banjul ñu ne nag du yàgg Paris Dakar sax ñi ngi koy waajal dañ ci ànd ak Fatou Bintou Conté

suñu compagnie bi di Air Sénégal international ci ñaari weer yi nga xam ne moom la ñu dëppmal moom compagnie bi li dafa fas yéene nag indi ay chapitre yu bees ci liggéeyam ba tax ni ay destination yu bees yoo xam ne ñu nga jëm fee nga xam ne moom moo di Abidjan Cotonou Banjul Bissau Praia Conakry koy yi Ouagadougou danañ ko ci amal Air Sénégal dafa fas yéene dugg fi nga xam ne moom moo di Afrique de l'Ouest di fa dem ci dëkk bu nekk compagnie bi nag dafa am avion bu bees moom moo ko waral mu tudd A319 nekk nag capacité boo xam ne toll na yi 120 sièges ci fin octobre bi nag beneen avion bu bees sax beneen A319 dina ñëwaat renforcer li nga xam ne moom moo di yeneen avion yi mu jot am ba tax ni loolu dina ko permettre mu gën a yokkaat yeneen liaison yoo xam ne dina ko ubbi jëm ca Praia Conakry Bamako ak Ouagadougou Air Sénégal dana fas yéene dem fee nga xam ne moom moo di Paris ci mois de février 2019 bi ligne bi ñuy wax dakaar Paris dañ ko fas yéene amal saa su ne moom Air Sénégal nag benn avion bu bees de dernière génération A 330 900 nga xam ne 290 sièges la am moom la wut nag moo tax mu permettre ko mu dem fee nga xam ne moom moo di Paris Air Sénégal dina nekk première compagnie bi nga xam ne bile avion moom rek moom moo ko fi am fii ci Afrique lépp nag ci wàllu coppite gi nag nañ taxawal benn service boo xam ne dañuy jaay ay billets fi nga xam ne moom moo di ci internet bile te nag li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu paiement bi mën na xaar te nag format bu ne am na ca ñu dellu wax rek euh, ci prix Nobel de la paix bi nga xamante ne nag ren ñu ngi ko jagleel rek ki ñu naan euh, Denis Mukwege ak euh, keneen muy Yezidine Nadia Mourad moom moomee ma nga fekk baax ca Iran fii nag ci Sénégal réalisatrice bi di Angèle Diaban moom am na ay kàddu yu mu yëkkati seede ko nag ci ki doomi Congo bi di Denis Mukwege moom nag la mu jàpp ci gynécologue boobee mooy sax taxoon na ay jamono film bi nga xamante ne jotoon na koo def moom fii ci Sénégal mu fësal ko farata ngir nag askan wi xam dëgg-dëgg liggéey bu am solo boo xamante ni mi ngi koy def ñu teewlu ay euh, kàddoom ci micro Ibou Diouf. tey moom dañoo kontaan wax dëgg fa yàlla kontaan nañu lool lool parce que docteur Mukwege Denis Mukwege bu kongo bi nga xam ne moom moo sanc euh, hôpital de Panzi di xeex depuis une quinzaine d'années plus de quinze ans di jàppale jigéen ñi nga xam ne ñoom la ñuy violé Congo. te 2014 euh, ma génne benn film documentaire bi ñuy woowee Congo un médecin pour sauver les femmes euh, mu nekkoon premier film documentaire bi ñu defoon ci liggéeyu docteur bi pour wone euh, li muy xeex ak li muy liggéey ak lépp lu muy def pour sauver jigéen ñi nga xam ne ñoom lañuy doon violé foofu Congo nga xam ne guerre bi sa nekk ba léegi donc tey nag mbégte la ñu am di félicité docteur bi mbégte tamit pour jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon victime violence sexuelle yooyu parce que xam naa ne kii bi du congolais yi rek waa hôpital bi rek ñoo ciy kontaan àdduna bi yëpp dinañ ci kontaan parce que ay at a ngi nii ñu yaakaaroon ne docteur Mukwege dina nekk prix Nobel tey mu nekk ko kon mbégte bu mag lay nekk ci man tey nag bis la boo xamante ni ku tàmmul di ree sax war nga ko def ndax bëccëg bi moom la ñu ko jagleel reetaan euh, tubaab naan ko sourire reetaan nag jàppale ni lu am solo ndax euh, bu weesoo euh, ree gi am na leneen loo xamante ne tey jii ma nga ca gannaaw reetaan dafay dundal reetaan dafay faj te reetaan dafa nekk loo xamante ne daal nit ku ne rek war nga baaxoo di ko def saa su ay sottu tey yenn saa yi sax ñu ñàkkal ko solo waaye reetaan dafa nekk loo xamante ne lu bëri njariñ la fajkat yi ñoom sopp nañu ko ndax limuy def ci nit mbégte googule lu am solo lu itam yamuñu ci ndax ndax ñoom tamit liñ si yokk mooy ne dina dindi stress ba tax na sax am na ay waykat yoo xamante ne fent nañu ay way me Jamaica and I said smile, yeah smile Hey smile for me Jamaica Depuis je garde le sourire Depuis je garde le sourire Tout ce monde qui s'est déplacé pour moi, oui Ngir nag door bis bi taamu nañu reetaan bu yanj ndaxte xam nañ ne semaine bi metti na boo paree coono daf lay dikkal ba feeñ si yow waaye nag faral nañu di wax ne ci bésu ajjuma bile ñuy fësal journée mondiale du sourire reetaan baax na si boo wàccee nga tàmbali ko sa soxna boo si mënee sax yokk bouquet de fleurs waaye faw ñu fàttali ki nga xamante ne moo sos bés bu am solo boobu moom nag mi ngi juddoo foofule sa États-Unis tudd Harvey Ball mu am sax benn xeetu dessin bu mu def ci atum 1963 ñu koy wax smiley ñun ci suñu ay bind ci suñu ay message ak réseau sociaux yi ñu faral di ko yónnante ngir fësal suñu mbégte kon nag tey ajjuma juróomi fan ci weeru octobre dama bëgg ñëpp reetaan ndaxte nag faw ñu fësal mbegte kon nag reetaan leen ngir rek améliorer seeni moral xibaaru tàggat yaram yi yegg si nañu ci ak uh, kuréel nga xamante ni moom mooy uh, tool lépp loo xamante ni nii jëm na uh, ci ñi ñuy sargal ci wàllug football samp nañu ko tey jiile kuréel googu nag jëwriñ ñi nga xamante ni moom la ñu dénk tàggat yaram di Mactar Ba moom moo ko jiite ka ca toftalu nag maître Augustin sengoor la kon jàppale ni Ballon d'Or bu Afrique daanu ko sargal ba ci nag footballeur yu gën a xarañ ñu ngi ko jàpp rek ci weeru janvier fii lay doon ci Diamniadio Pape Farah Gningue CAF Award foot 2019 footballeur yi gën a xarañ ci déndu Afrique dinañ leen jox seeni raaye fii ci Sénégal mu nekk lu njëkk Sénégal nag CAF daal leen tàmm lu tax nag CAF daal di tàmmu lii di senegaal résultat yu baax yi nga xam ne def nañ ko jamono jii. xamante ne ba mu dajee ak kiit nga xam ne moo jiite kuréel gi yor football bi ci Afrique muy Ahmad Ahmad président CAF président Macky Sall pour bégal réewam pour bégal sportif réew mi. mais pour jàppale Afrique dafa nangu jël li nga xamante ne mooy organisation AWAD 2019 ni ñu koy tuddee muy ay raaya yu ñuy jox ñi gën a ràññi ci li ñuy liggéey ñu war koo defee fii bu weeru janvier jotee ci 2019 bu amee juróom ñetti fan fii ci jam Diamniadio ci salle de conférence bu Abdou Diouf. comité bi nag bañ ko dalalee li ñu bëgg moo nekk organisation bu jaar yoon président bi di woo sportif yëpp daal di mobiliser wu. di gërëm bu baax président FIFA waaye gërëm it ki nga xamante mooy président CAF delloo njukkal gërëm président Augustin ak fédération sénégalaise de football yëpp ci seen taxawaay defe naa ne liggéey bu ñu def la ñoom. ak leadership président Macky Sall ci monde bi ak ci Afrique moom moo tax tey ñu Sénégal taxaw pour jàpp ci organisation bi ba pare organiser ko mu nekk lu rëy rëy eh, ci biir eh, gëstu bi ñu gëstu xam nañ ne Ghana ak Nigéria rek la daan amee lu gën a bari eh, défi la nag bu ñu war a te xam naa ni dañ ko relever parce que fédération sénégalaise yàgg nañu liggéey ak état ci fulla ak fayda ak jom cérémonie CAF Award foot boobu nag ñu ngi ko jàpp juróom-ñetti fan ci weeru janvier 2019 fële ca salle bu ab du Diouf bu jam ñaajo lu toll ci euh, ñeent fukki milliards ci suñu koppar moom la ñu fas yéene def rek ci stade Léopold Sédar Senghor ngir defaraat ko euh, jëruñ ji dénk wàllu tàggat yaram moom moo ko xamle kàddu yooyu nag am na ñoo xamante ne ñoom rafetlu nañu ko waaye am na ñoo xamante ne gisee nañu neneen bu ñu sonoon kon stade bu ni mel daanu ko def kon fépp ci biir Sénégal mbaa boog ñu def ko euh, ci yenn diiwaan yi ci Sénégal Cheikh Sadou Fall Younis Diatta stade Léopold Sédar Senghor nekk ci état bu doy waar ci jamono ji nga xamante ne Sénégal mu ngi war a dalal Soudan ci éliminatoire CAN 2019 ministre des sports génnee xibaar bi ne dinañ ko defaraat ci njëg boo xamante ni mu ngi tollu ci ñeent fukki milliards ci suñuy koppar. ñi fi nekk xamuñu amuñu vision maanaam euh, ci euh, tàggat yaram parce que buñ ko amoon. du ñu jël quarante du ñu naan dañuy jël quarante milliards def ko ci benn stade boo xam ne tey jii stade bi xoolal alentour yi amatul sécurité te FIFA bëggul loolu tey dans les normes match euh, kii stade bi bu FIFA defee kii am euh, inspection normale match bi kenn war fii kenn euh, équipe nationale warutoo fee jouer éliminatoire coupe d'Afrique éliminatoire coupe du monde parce que euh, amatul benn sécurité. yeestal stade Léopold Sédar Senghor di lu ñu yàgg xaar ndax capital bu mel ni Dakar faaw mu am stade bu mag. tey jii loolu lu baax la mais man li ma bëgg mooy que tey jii bu ñu jëlee xaalis boobu def ko ci stade bi bu ñu paree ñëpp mën a gis ni kat stade Léopold Senghor nekk na comme stade yi nga xam ne moom la ñu gis feneen et que Dakar warul nekk zone. boo xam ni no man's land la amul stade équipe nationale war fi jouer war fi war fi war fi football war fi recevoir ay match yu rëy rëy. bu boo buggee sa équipe nationale parce que léegi dangay xool euh, équipe nationale yëpp yëpp dañuy dem à l'intérieur de leur pays da ngay dem Mali boo demee Mali aigle du Mali. mën na dem jouer ji à Sikasso mën na dem jouer à Mopti mën na jouer dem parce que foofu am na ay stade nga dem Guinée équatoriale nga dem Gabon nga dem fu nekk dëkk yooyu léegi ñoom dañoo avancé. équipe bu mel ni Sénégal faaw mu am stade bu méngoo ak moom autorité yi war nañ cee jóg ci ni mu gën a gaawee. jërë ngeen jëf mbokk yi kon fii la ñuy yem ak ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen ci kanam tuuti 20h Cheikh Tidiane xibaar yi ci nasaraan.